ami internet yi comme euh, sa niñ ko defee woon ak euh, ñi ci des noonu la ñuy ñëwaatee ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Malick Malick nag euh, représenté fi ki nga xamante ni moom mooy Mimi Touré Mimi Touré nag kenn dootu ko naatable nekk na fi premier ministre nekk na fi ministre de la justice tey nag euh, ñu dénk ko li nga xamante ni moom mooy au conseil euh, mu yor ko tey nag ki nga xamante ni moo toog ni moom moo ko représenté ñu dugg nag ci poñ yu bëri dinañ dugg APR naka la toogee fii ci diwaan diwaanu Thiès dinañ dugg ci ki nga xamante ni tamit moom mooy maire bu waan yor maison de la presse bi xeer yi nga xam ne dina ko faral di ci kilifa yi ci diwaanu réew mi dinañ ñëw tamit ci li nga xam ne moom mooy livre bi Thierno Alassane Sall génne dinañu débat daal ci lu bëri avant tout nag dinañ dugg ci li nga xamante ni moom mooy actualité di limogeage ki nga xamante ni moom mooy Moussa Diop di DG Dakar Dem Dikk en plus li nga xamante ni moom mooy troisième mandat bu président de la République ak li nga xamante ni moom mooy dialogue politique bi Malick ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi maa ngi leen di fay di leen nuyu. di leen jëfal bu baax di nuyu euh, le le directeur Mbaye Samb euh, di nuyu waa Thiès 24 yëpp ah, vraiment di télé boo xamante ni dañ koy suivre bu baax a baax a baax te sagub sagub Thiès la daal waaw man nag euh, maa ngi mhm. maa ngi tudd Malick Dieng nekk responsable politique ci diwaanu Thiès jiite mouvement bii ñuy wax les amis de Mimi dooleel APR euh, falaat la président Macky Sall euh, nekk membre conseil économique et social environnemental bokk ci cabinet mu def moo son chargé de mission bala ñuy dugg ci débat bi dañuy nuyu suñu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di nuyu di jiital nuyo bi di ci teg son excellence le président Macky Sall bu ñu nuyoo son excellence le président Macky Sall nag kin ciy teg buñ ko nuyoo nuyu nañ ñëpp muy benn jigéen kenn koo xamante ne nii ab ni nga ko waxee ab institution lañ ko jox kooku buñ ko nuyoo nuyu nañu gouvernement bi yëpp muy madame la présidente euh, Mimi Touré nekk présidente du conseil économique social et environnemental Malick dañuy dugg ci li nga xam ne moom mooy débat bi avant tout dañ lay laaj li nga xamante ni mooy sa naataango Moussa Diop bokk ci li nga xamante ni moom mooy APR Macky Sall jël na décision limogé ko niki barki démb loolu lan la mën a jàngal aska lan leen mën a jàngal vis-à-vis que ni keroog dafa génn wax ci li nga xam ne mooy troisième mandat bu Macky Sall saa su amee ñu am ku ñu limogé est-ce que loolu tamit du wàññi suñu démocratie. waaw man jàpp naa ne du du man jàpp naa ne du limogeage du limogeage parce que le directeur Dakar Dem Dikk Moussa Diop wax na ko mooy nee na maa ngi félicité di remercier son excellence le président Macky Sall ci six ans yi nga xamante ni am na ko confiance ci man te ku xam le directeur Dakar Dem Dikk xam ne kër gi wax dëgg yàlla fi mu ko fekkoon yóbbu na ko parce que Dakar Dem Dikk mi ngi yemoon ci Dakar dem na léegi ba Sénégal Dem Dikk bay waaj a lancé euh, Afrique Dem Dikk kon jàpp naa ne le président Macky Sall comme ni ma ko yàgg waxee moom moo am sañ-sañu fal ak folli man jàpp ma ne ci li mu wax ci troisième mandat bi moo tax mu folli ko nit nag dangay ngay maanu ki nga xamante ne nii moom la ñu jox ne ko yow yaa wara fal yaa war a folli kooku heure bu falee kooku heure bu follee moom rek moom moo mën a indi ay ex moom moo mën a indi explication ci limogeage bi nga xamante ne nii defal na ko suñu camarade de parti muy maître Moussa Diop di jàmbaar yàgg a défendre son excellence le président Macky Sall comprendre nga yàgg kaa taxaw donc man jàpp ma ne ci troisième mandat bi la wax. est-ce que loolu tamit du andi jafe-jafe ci kër gi ak fi mu moom euh, lancé bi mu jëloon parce que ki ñëw dina mën a topp ci lancé bi. waaw mais moom da ngeen di fàtte ne bi ñuy fal Moussa Diop am na euh, Dame Diop moo fa nekkoon te moom mi ngi doon préparé lancé Sénégal dem dikk bi moom mi ngi woon ci projet boobu mais Moussa Diop daa ñëw yeggali loolu la. est-ce que tamit lii di am saa su ñen limogeage bi saa ne kàngam yi ñu leen di dàq nii ci parti gis nañ Moustapha Diakhaté gis bi Moussa Moustapha Cissé Lo tey keneen ak keneen ba tey ci Moussa Diop ndax loolu tamit doo andi jafe-jafe ci parti bi nga xamante ni suudewul dëgg dëgg dëgg dañu jóg rek ñëw au pouvoir. très bien très bien waa parti boo xamante ne ni suudewul du ma la ko nangu parce que parti boo xamante ne ni suudewul te heure boo demee élection gagné. wax dëgg yàlla man loolu du ko du ko du ma ko du ko du ko nangu quoi parti bu suude la parti boo xamante ne nii képp koo xamante ne nii war nga fa représenté am nañ fi représenté jeune am nañ fi représenté femme am nañ fi sage am nañ fi leneen ak leneen am na ko gère am na ko jiite jigéen ñi kon yéen nan ngeen di tuddee parti boo xamante ne nii suudewul moom laa xamul. suudewul euh, yow xam nga ci dara ndax ci diwaanu Thiès li nga xam ne mooy benn bokk yaakaar. di APR li ñu leen di gis ñuy réunion wala ñuy woote ay néew na daal néew na trop par rapport ak ñi nga xam proposition bi. loolu damay sawar di ci tontu di lancer un appel le président Macky Sall ne ko na xoolaat parti bi fii ici à waaw na ko xoolaat bu baax a baax a baax a baax parce que ñun amuñu lul suñu APR. amuñu lul suñu bennoo bokk yaakaar parce que waa bennoo bokk yaakaar ngor rek la ñu àndeek ñun fulla rek la ñu àndeek ñun euh, jàmm la ñu àndeek ñun lu ne la ñu yéene waaw loolu ma ciy lancé waale son excellence le président Macky Sall que ne parti APR ici à euh, yëngatuwul daal yëngatuwul ni mu war a yëngoo réunion amul woote wuñu réunion seeti wuñu nit ñi comprendre nga baax li ma la te loolu man lu may jaaxal la ci parti bu mel ni APR war nañu mën a woote réunion ba léegi ñu xool def diagnostic taxaw ne lii moo ñu perteloo fii lii moo ñu perteloo fii lii meeñu lii moo ñu perteloo fii bu dee nag élection day am nga woo ñëpp ñëpp ñëw ñu dem bu ñu gañee war nañu évaluer bu ñu perte war nañu évaluer waaye daal maa ngi koy xamal ne ko man maa ngi koy lancer un appel pour ñi nga xamante ne nii tey ñoom la jox nombal tànk nekk ci cees ñu gën a animer parti bi gën a animer parti bi nag mooy damay lancer walla un appel le président Macky Sall mooy am na ay am na ay do am am na am na ay dignes fils yoo xamante ni ñi ngi foon di ko jàppale ba dara dul dara kenn rek bu ma ko ci jëlee rek yóbbaale na ñëpp mooy kan DC Papa Alioune ki nekkoon directeur cabinet le ministre Thierno Alassane Sall kooku boo ko tuddee rek yóbbaale nga ñëpp ak ñeneen man li may lancer un appel le président Macky Sall mooy keroog ba mu faloo nga xamante ne nii président doo nga am ministre amul directeur amul député amul dara amul mu woo leen ci saalam boobu woo cadre bi man ñooñu bëggoon naa mu recevoir leen waxtaan ak ñoom xam ne ñooñu mooy dooleem mooy léppam mu xool nu ma ànd ak ñoom. kon nga ni ñàkk suude bi ma doon wax nangu nga ko rawatina fii ci diwaanu Thiès ndax bu dul Thiès rek euh, fépp foo fépp ci Sénégal gis nañ ne affaire daal diversion la nekk ci divergence daal la ñu nekk ñuy jaare nii ñuy jaare maanaam daal bokkuñuy kàllaama. non suude nga ma wax ma ne la ma ne la parti boo xamante ne nii euh, suudewul te heure bu demee élection gagné ñun loolu dañ ciy sant yàlla mais. animation parti bi man laa la wax ni mu waroon doxee dëgg dëgg dëgg dëgg. des na mooy ñàkk a suude bi nag. ndax bu suuda bu buy suude woon. kon waxtaan dina non non non non non non xam nga tey xam nga tey tey tey kenn rek mënoon na woo ñëpp muy le ministre porte-parole Ndeye Tické Ndiaye Diop nekk porte-parole du gouvernement parce que bu ne ma wax ko premier ministre benn poste la benn mais porte-parole benn la te ki ko jox Thiessois la Thiessoise la de passage ñu koy nuyu mi ngi liggéey liggéey bu am solo. mais animation bi man laa wax tey moom war na mën a uuf ñëpp te yaakaar naa mi ngi ci li ma gis man jàpp naa ne mi ngi ci xëy na jotam moo ko ko matale mais jàpp naa ne tey war na mën a ñëw woo tuuli ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Benno Bokk Yaakaar laaj leen woo ñi nga xamante ni ñooy mouvement de soutien laaj man loolu lu may lu may lancé appel la barki dem rek am na ku may ku may ku may ku may ku may waxal sama benn jeune frère nekk cadre nekk cogère euh, muy mbay Guèye ay ñoom Fatkara ñi ngi fi nekk ay jeunes yoo xamante ni ils sont diplômés ànd ak président ba dara dul dara mais ñooñu dana leen war a jël jàppale leen dugal leen ci ci ci ci ci direction yi. kon pas kon balaa ñuy ne naam ne fa balaa ñuy woote dialogue politique nañu woote dialogue parti d'abord. ci loolu nga mën a wax non xam nga sama parti nga ma laaj. <laughs> waaw loolu laa la balaa ñuy wax dialogue politique wax dialogue parti. non Macky Sall bu mënul dajale ay alliés naka la mën a dajale opposition bi ak kii bi. non defal ndànk defal ndànk sama parti nga ma laaj. <laughs> xam nga son excellence le président Macky Sall dama ciy ñëwaat di sawar di ci wax. xam nga daf ma weesu si Macky Sall di kontaan. <laughs> damaa fekkee gis nga bi mu faloo. dafa woo ndeysaan de passage euh, Thierno Alassane Sall ne ko indil ma cadre yi cadre yi ñëw toog mu ne leen su ma juumul. matuñu sax 300 personnes mun leen matu leen sax 300 personnes mais déglul baat bi président son excellence de président Macky Sall wax ay cadre am mënumaa fal ñëpp mais dimbalee leen ma ba bu ma leen falee ngeen wàcc ci suuf fal askan wi attention waxul waa APR fal askan bi la wax attention ma ci ciy leneen am na beneen directeur bu mu doon fal boo xamante ne nii boîte bu mag la yor ci lu jëm ci wàllu financement xam nga lu mu wax directeur boobu da ko ne ki nga xamante ne nii man bëgguma du wax samay wax su ñëwee soxla financement jox ko ndax dénkuñu ma APR Sénégal lañ ma dénk ki nga xamante ni dafa ma bëgg su ñëwee jox ko ki nga xam ne day politique politiqueul su ñëwee jox ko ñetti ñeneen yem ci yow mais duma taxaw fii di wax kooku ban directeur la kon le président Macky Sall dafa uuf ñëpp boo xoolee ni muy doxalee nga xam ne ñëpp la uuf nag waxtaanoo dëgg ca la Benno Bokk Yaakaar ban coalition moo mës a taxawee nii ba Sénégal des Sénégal ba léegi wax ma ko Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade 2000 2002 mhm. mais yow yaa ko wax fii ci diwaanu Thiès booloo leen maanaam du ngeen réunion amul waxtaan amul te bu waxtaan amul tamit euh, defaroo. ak dama la fii ci diwaanu ah, Thiès man li ma la wax dafa leer dama la ne fii ci. waaye guy gu mag gaa ngi fi de. kooku moom bu ngeen tasaaroog bu ngeen dajalee yëpp guy gu mag gaa ngi fi très bien kooku damay sawar di ko nuyu de passage man kooku dama koo jox ca muy kan Idrissa set man damay ñaawlu sax suñu waa parti man ñii taxaw naan opposition amu fi si opposition am na dañoo fàtte ne Macky bi mu gagné. dafa taxaw ne li may njëkk lijjanti mooy ñi ma wooteelu lan moo tax ñu wooteel ma wooteelul ma xanaa dañuy fàtt ne Idrissa Seck yi passé 20 pour cent la am xanaa dañuy fàtt ne Sonko 15 pour cent la am xanaa dañuy fàtt ne Issa Sall 4 pour cent la am xanaa dañuy fàtt ne euh, pour cent la am bi ma la jox nii mooy 40 pour cent 40 pour cent nag bu ko opposition bi téewee man jàpp naa ne dañu waroon laxa sooy goj doon benn fexe ni ñu jëlee 40 pour cent boobu dolli si son seen excellence le président Macky Sall. mais waruñoo taxaw di gëmloo président ne ko opposition amul. si est du ñoom loolu ngeen ragal ci élection locale yi ñu jëm ba tax na Macky Sall di bëgg a teg euh, statut chef d' opposition. billaahi wallaahi taalaahi damay waat bu woon mbas mi élection locale yi ñëw na te dañ leen di duma. mais moom xam na bu woon mbas mi. Uh-huh. bu dul woon mbas mi xoolal. dañuy gañewaat comme ni ñu yàgg gañe mais élection yi Thiès ba léegi Thiès amagu fi ndande de yaa ngi ñëw te ban leader moo fi ne APR bu mën a viser mairie ville fii ci Thiès fii fii bokk APR. ban leader ndax ñoom de élection yi ñu jàll yëpp dañ leen a gañe ku ci ne gañe nañ la sa bureau de vote. waaw d' accord ku ci ne gañe nañ la sa bureau de vote loolu dama la koy nangu. Mhm. dem élection perte moom yàgg na fi mais euh, dafa am jàngat bu ma defoon dama ne woon APR bi muy soog a démarrer dëgg dëgg dëgg dëgg. 6 pour cent lañ fi am maanaam 100 personnes yoo gis 6 pour cent yi ñoo ci wooteel Macky Sall muy 2012. ñu jugee 2012 dem 2014 yaa ngi dégg baari mi la am ñaata 42 pour cent kon gars yi ay jàmbaar la ñu de waaye xam nga lu ma jaaxal bi ñu jugee ci élection locale yi di jëm ci élection législative yi du samay wax waxu waxu son excellence la président Macky Sall tiwaawoon la taxaw. ne mënu leen jóge 42 pour cent am 39 pour cent bu doon élection présidentielle la da ngeen may deuxième tour lan moo waral loolu lan moo waral ñu jóge 6 dem 42 jóge 42 dem 39 te pourtant tey le mouvement de soutien yi gën a bëri. xanaa yow yaa ko wax de yow yaa ne seen ñàkk booloo la fii ci diwaanu Thiès. déedéet. moo tax kon yow déggoo fii dafa bëri ay opposants kon yow. kon yow déggoo sama wax moo tax ma ne son excellence président Macky Sall ñi mu àndaloon déggoo ma nga xamante ne nii Macky Sall recevoir noonu gis nga keroog bi ñu nee. le président mac sàll fal na le président de la république bés bu ne ma dugal photo bi te dinaa la ko jox sax cadre yi mu dajale woon ñooñu na leen fexe renforcer dooleel leen. mais est-ce que dina yombati Thierno Alassane Sall dem na euh, ñeneen ak ñeneen dem nañu quitté nañu parti bi dem nañu mais est-ce que. kan moo dem kan moo dem kan moo dem Thierno Alassane rek nga may wax ah? moo dem. ah mais Thierno dem na Moustapha Cissé Lo euh, dàq nañ ko. déedéet ah Moustapha Diakhaté dàq nañ ko. mais est-ce que dina yokk déedéet déedéet discipline di part discipline ah. de part nag dafa am quoi waxtaan dëgg ca mais ñooñu ñëpp ñoom ñooy cadre ñoom ñoom ñooy maanaam euh, euh, moo ñoom ñoo téye woon APR mais ñooñu bu ñu leen dàqee tey est-ce que defaraat APR dina yomb. mais bañ a yomb mais loolu ci laay woon son excellence le président Macky Sall déggoo li ma la xanaa yow dama laa jox ay chiffres dama ne dañoo jóge 6 pour cent dem 42 jóge 42 pour cent am 39 jóge 39 wàccaat wala déggoo li ma la élection euh, su ma juumul élection euh, législative yi dañoo perte commune bi gagné département bi présidentielle yi Idrissa Seck ñëwaat jëlaat département bi jëlaat commune bi lan mooy problème bi lan mooy problème bi au juste lan la lan mooy problème bi ba Idrissa Seck yi mu pertoon yëpp mu commencé di ko jëlaat. mais gannaaw Idrissa Seck Thierno Alassane Sall mu ngi fi de moom mi nga xamante ni tout récemment di ci wax li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe ci euh, Sénégal. <laughs> non livre ah? boobu nag wax dëgg yàlla nag ci laa bëggoon nga laaj ma xam nga livre am boobu. waroon na wax moom man dama yaakaaroon Thierno Alassane Sall. xam nga Thierno Alassane Sall dafa rate histoire politique du Sénégal. te dootu ko rattrapé ba ilaa yu mi diini gis nga son excellence le président Macky Sall. nga yaakaar ak li mu bind ci livre may ma ñëw may ma ñëw noonu dama ne Thierno Alassane Sall dafa raté histoire politique du Sénégal te dootu ko rattrapé ba ilaa yow mi diini. xam nga li tax Macky Sall dafa jàppanteeg Abdoulaye Wade kenn mosu koo dégg mu wax lu ñaaw élection jot mu dem présenté wu. Idrissa Seck jàppanteeg Abdoulaye Wade élection jot mu dem présenté wu Thierno Alassane présenté wul àndul ak bi xamal opposition bi ne yéen du ma seen nawle moo tax ma ne la li mu raté dootu ko rattrapé ba ilaa yow mi diini. xam nga boroom gémmiñ guy nàcc nag du wax jàmm waxtaan wax dëgg ca la léegi dama lay laaj ban kàddu gu ñaaw nga mës a dégg rek Macky Sall yëkkati ko rek teg ko ci kaw Abdoulaye Wade. mais Macky Sall musul am non musul am xam nga musul am. léegi nag Thierno Alassane Sall ñun jaaxal nañu lool xam nga dañoo mës a toog benn jour ma ne ko monsieur ma ne ko dàqoo fi jàng Thierno Alassane Sall bala mu doon xam ne jàqoo fi jàng mu dem Mauritanie ndax dañ ko def ministre na dem Mauritanie rek logé ne cadre laa ndax dinañ ko def ministre sa waajur wu góor génn àdduna un président de la république ñëw fa vingt heures vingt une heure maa ngi taxaw waajur ni mu mel njiitu réew laa wax ñëw taxaw fekkee jullee ba fal jot mu fal la te nag may lancé waat un appel le président Macky Sall que ko képp ku muy dénkati lépp lu jëm ci affaire énergie na ko xool je lance un appel monsieur son excellence le président Macky Sall gis nga lépp lu jëm ci énergie koo koy dénk war nga ko xool bu baax gis nga lépp lu jëm ci jàng koo koy dénk war ko xool bu baax gis nga lu jëm ci ndox lépp lu jëm ci ndox koo koy war nga koo xool bu baax a baax a baax parce que ñett yi ma la wax mënul ñaax oto yi bu ñu xëyee war nañu daw kon donc gasoil warul manqué kon kii dénk énergie bi war nga koo xool courant bi ci la ñuy liggéey bu dul woon liggéey ci courant kon sa caméra bii du tax kon ki nga koy dénk war nga koo a xool mën ngaa yow manqué di nag xoola ku la neex nga jox ko mais li nga xamante ni moom moo jëm ci diggante ki seen diggante ak ki nga xam ne moom moo yor euh, maison de la presse bi euh, lan mooy seen problème au euh, dañ koy nuyu di ko jaajëfal di ko wax ne moom mention spéciale laa koy defal Baara Ndiaye dama koy defal 100 moom moom du ma ko may sax 90 dama koy defal 100 pour cent li tax ma koy may 100 pour cent mooy Baara Ndiaye au lieu mu wër di jaay produit son excellence le président Macky Sall liggéey bu am solo bi muy liggéeyal sénégalais ak sénégalaises Baara Ndiaye nekkeewu fi lu dul di attaquer les hauts cadres à les hauts responsables Baara maison de la presse na ko son excellence le président Macky Sall jox dama yaakaar nag Baara Ndiaye xamul cër bi nga xamante ne nii moom la son excellence le président Macky Sall defal Mimi Touré. uute nag lu mu wax ci béy ba lu mu wax ca dara ba ñu ne béy ba la nan ko wax man mënumaa wax di wax ci émission ba pare te waxuma son excellence le président Macky Sall fi mu teg Mimi Touré dama ne ci àdduna bi fépp APR xam nga samp ko fa ci àdduna bi benn jigéen ci APR lañ jox ab institution kon Baara Ndiaye respecté wul son excellence le président Macky Sall Baara faalewul son excellence président Macky Sall Baara Ndiaye lijjantiwul parti te nekk ci ginnaawam xam nañ ko statut chef d'opposition bi ndax nangul nga ko Idrissa Seck. Euh, dama koy nangul waaw xam nga tax ma koy nangul euh, élection yi passé wax dëgg yàlla bu yàlla rek day tax ñuy wax Idrissa Seck moom moo jël deuxième waaye nag dama dégg sànq sama kam sama benn euh, mbokkum opposition toog fii ñu koy wax Aly Nguer mu toog naan dëkk bi looloo waral mbas mi am mais mbas mi ñëpp xam nañ ne natt suñu boroom la moom na leader dafa dafa dafa dafa dafa jàng alxuraan mais Idrissa Seck boo ko laajee dina ne leen lii nattu la man damaa man damaa yërëm son excellence le président Macky Sall gis nga jëkkër ak jabar bu ñu xulloo sax bu tawulee ñu ne Macky Sall la mais lii nattu la maanaam feebar bi du feebaru tuberculose wax naa ko sama benn camarade benn jour maanaam sama jàngu soriwul mais tuberculose est une maladie contagieuse la ñuy wax day waale sibiru mën ngaa sibiru ma bokk ak yow benn oto yóbbu la dispensaire nga fajuma àndaat ak yow indi la mais gis nga. Covid bi Covid aw ma fi kon nattu la te yow bu ko docteur bi xoolee du xam fan la nekk ci yow kon nañuy bu ñuy jaawale nattu ñu ne Macky Sall mënul man leen waaye moom la fi Macky waaye moom yàlla teg ñëpp xam neen mënul ñoom ci liñ jàpp mooy neen Macky Sall mënul mais moom la fi suñu borom teg te jaam day nangu dogal ñëpp xam nañ ne élection yi passé dañ leen wulee wulee wulee ba ñuy bëgg a dee mu toog fii naan waaw jàmm gën ay xawma lan ak lan ak lan bu leen taal sama dëkk lan la taal ñoom nee nañu constitution bi ñoom la ñu yaakaar constitution bi la ñu wóolu ñoom loolu lañu ñu wax constitution bi taxaw ne Macky Sall am na tant pour cent ñu bëgg a taxaw ne Macky Sall dafa sàcc élection yi. jënduñu constitution bi tamit yow tamit. nga ne constitution bi est que jënduñu ko. jënd la ah constitution bi constitution bi ko mën a jënd. Ah, ah. xanaa ki moom ki ki yor réew. non non non non du tout wax ma leneen lu ma mën a dégg. Ah. wax ma non non non wax ma leneen wax ma leneen lu ma mën a dégg. waaw ah. ah, wax ma leneen lu ma mën a dégg mais deuxième tour waroon naa mën a am quand même ci élection yi jaar. Hmm. billaahi bu deuxième tour xoolal bu deuxième tour amoon sax ñu dañ leen di duma. yow hmm. Macky Sall dafa liggéey. ah baax na élection locale yi soreetul. da ngeen di seetaan RTS. Mhm. ñu wan leen ay dëkk yoo xamante neen 1960 lañ gëj a gis ndox buy xel mais yéen PUDC li muy liggéey da ngeen koo xeeb ASER li muy liggéey da ngeen koo xeeb Senelec li muy liggéey da ngeen koo xeeb man entrepreneur laa dama ne dama ne dama ne dama ne man entrepreneur laa damay gagné ay marché Senelec Daaru Salaam gii dugg naa fa monté fa lu mu néew néew néew 400 maisons yoo xamante ni mosuñoo gis courant te le ministre Thierno Alassane Sall moom moo ñëw inauguré ko Daaru Salaam gi waa ñoom bi ñu fi nekkee Idrissa Seck dëkk Thiès Daaru Salaam gi 400 maisons amuñu courant moom du wax ci loolu mais Idrissa Seck il n'est rien non Idriss Seck mi ngi opposé ah. jox respect nag lool son excellence le président Macky Sall. ndax ni mu ko waxee mooy ndox mi nga xamante ne nii day fay lakk. jarul filtré dem toogi loolu ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm. respecté bi nga xamante ni nag mesures yi na ko te ñu ngi ko ciy sant di ko ci gërëm moom daal fi mu teg tànkam foofu la duma nañ ko mi ngi dem toogi Idriss Seck homme de duma nañ ko day dem toogi ba mu ñëwaat du ngeen dégg Idriss Seck 2024 da ngeen di sampaat seen dënd. lu ñuy tee lu ñu tee sampaat suñu dënd. <laughs> dina métti de. nu muy méttee. nan lay méttee. mais Idrissa Seck chef d' opposition. waaw ngeen ne da ngeen di jàkkaarloo waat ak moom ak li xewoon. mais Idrissa Seck nii nii nii may wax yow nii nii may wax ak yow. nii nii nii eh, nii may wax ak yow. Eh, élection yi pass dañ ko duma. Eh, dañ ko duma. ba pare ngeen bëgg a ñëwaat troisième mandat ak li xew ci Afrique yëpp. lan moo xew ci Afrique. Ah? lan moo xew Mali. Ah? lu xew ah yéen gis ngeen président bi niñ ko def ci affaire euh, troisième mandat. voilà gis nañu li xew euh, Guinée gis nañ mais xam nga loolu ñoom dañoo dem. Ah? ba toll ci ay élection waaw lillahi wa rasuuli maa ngi lay ñaan. Ah? Thiès 24 nga nekk. bés bu ñu demee ba ay élection xam nga ñii xam nga ñoom Alinguer yàqamtee falu mënul weesu Alinguer naan la ñu ngi 3 ans moo leen dese léegi léegi am na benn femme bu ñuy waxal Alinguer ne ko 3 ans moo leen dese may laaj Alinguer tey jii tey tey la lan non non la gën a 5. ah 4 la waaw 4 la. ah 4 mm-hmm. la 4 la waaw le 4 mm-hmm. septembre. 2000 mm-hmm. lan. 2020 2020. élection yi war a am 2024. Aly Nguer nee na 3 ans moo ñu dese. léegi léegi la ko wax benn femme. <laughs> mais est-ce que du njuumte. non non non Macky Sall dama ne 2019 la falu. Macky Sall defagul un an ci pouvoir bi. opposition bi bëgg taxaw bëgg ñoo wax waxu troisième mandat. mais ñii nañu respecté Sénégalais yi. te yéen fas ngeen fas yéene ngeen samp seen dënd. non dama ne Benno Bokk Yaakaar 2024. ndax du ñu am candidat. non APR laa wax j'ai bien dit APR. non suñu coalition ñun toujours nag dañoo tàmm di dem ak coalition. Hmm. wax dëgg yàlla. parce de passage de passage dañuy de passage dañuy delloo ci nga xamante ni moom mooy doyen di kilifa Benno Bokk Yaakaar. muy Moustapha Niass ndax moo ci mag. wax dëgg yàlla ndax mi ngi ànd ak ngeen di jiitalaat. kookal la yéen ba deux loolu nag man tuuti naa lool lool lool pour wax ci. ndax man militant la ak di chargé de mission. dëgg yàlla tuuti naa loolu pour wax kan la ñuy jiital kan lañ jiital man tuuti naa ci loolu mais de passage daal man dinañ respecter décision yi nga xamante ne nii moom la parti bi jël loolu lu ci parti bi mën a jël dinañ ci ànd ak moom. Moustapha Niass nag moom moo nekk doyen mag ci coalition bi dañ koy delloo cëram ndax Abdoulaye Wade bëggoon na ko Idrissa Seck Abdoulaye Wade bu sañoon Moustapha Niass ànd ak moom Abdoulaye Wade bu sañoon ndeysaan fa Ousmane Tanor Dieng ànd ak moom. Abdoulaye Wade bu sañoon sa Seck bu dem bu ñu demoon tey deuxième tour te Idrissa Seck ànd ak moom te ànd ak moom da ngeen lépp lum la mën a jaral ba nga ne di nga falu dina ma ko jaral ba du ma falu ñoom ñu nekk fi di ay pétard rek ak i lacrymogène Macky Sall dem wax ak askan wi askan wi fal ko loolu kese la mais daal de passage maa ngi wax opposition bi bu nu yàqamti 2024 des na de Macky Sall defagul un an ci pouvoir bi su ko defee wax ma ko. di la jaajëfal a euh,